ci bëccëg dañoo ñëwoon fii ci commune Malicounda di tàmbali joxe ndimbal bi nga xam ne moo jóge ci nguur gi te ndimbal boobu li ko waral mooy jàngoro yi ñu tuddee coronavirus bi mu ñëwee ci réew mi dafa am lu bëri lu mu yàq am na ñu bëri ñoo xam ne liggéeyatuñ mënatuñoo am dépense mënatuñoo def benn activité pour mën a yor seen njaboot loolu la président de la république xam mu ne dinaa tëgg benn programme boo xam ne ay milliards yu bëri laa ci def ma dimbale un million de ménage te boo dimbalee un million de ménage mi ngi mel ni huit millions de personnes wala dix millions de personnes nga dimbale mu ne dinaa leen jàppale ci jafe-jafe yi nga xam ne jànkoonte nañ ko ci feebar bii di coronavirus muy nekk ndimbal bu am solo ndimbal bi am na ceeb saabu dëwlin suukar ak lu ñu tuddee pâte alimentaire waaye bi ñu defee loolu maanaam njël yëpp mënuñu woon a daj parce que état bi mënul dajal yëpp mais dafa wax ni na maire yi aussi bay seen waar pour jàppale ña nga xam ne ñi tànnuñ leen maanaam jotuñoo am ci ndimbalu nguur gi pour ñu mën a am au moins luñ teg seen loxo moo tax bi ma ñëwee tey gis Maguette seen maire commune Malicounda li mu def vraiment dama ne. lu jar roy parce que c'est beaucoup d'argent, beaucoup de millions des dizaines de millions pour ne pas dire centaines de millions avons appuyé la commune de Malikunda. pratiquement ménage boo xam ne ci dëkk bi am na Il sa loxo de ménage grâce à l'accompagnement de la commune de Malikunda, vraiment à la tête de laquelle se trouve M. le maire Maguersen. donc fille dama koy

vraiment di jëfandikoo sabu wala gel hydroalcoolique di tok sen kër parce que ku fi tok nan feebar bul da nga am lu metti lo xamne dina la bett. yow tay euh, ànd ak kilifay euh, arrondissement bi muy monsieur le sous-préfet de l'arrondissement ak euh, bureau municipal bi ak conseillers yi ak chef de village pour jotali dimbal li nga xamne président Macky Sall moko def muy milliards yu bari mu tek ko ci loxoy new néew doole yi pour que mbass mi nga xamne ne jaar na fi ah wax deug yalla nit ñi. mën a taxaw jàkkaarloog mbas mi ndax saako bu deful du taxaw ñu ciy jaajëfal président Macky Sall bu baax ak gouvernement am ñu am conviction ne ñun ndekete ndimbal li heure bii bu ñëw sax la gëne parce que ku xam Malicounda ak dëkk yi ko composé xam ne ay dëkku baykat la baykat nag bu jàkkaarloog feebar ba xaw a lot war a jàkkaarloog nawet nga jël ay saako ceeb ay diw ak lépp lu muy àndal dugal ko ci néegam dina mën a bay mbay mu dal xel dina mën a nekk jàmbaar ca waar wa te am na yaakaar ne nawet bi incha allah yàlla na ko yàlla def mu bari ndox nawet bi bu amee ndox yàlla mën nañ ci def sutura ba buñ génnee ci nawet bi xëy na mën naa doon sax yokkute lay doon ci Sénégal waaye du doon wàññeeku kon boog ndimbal li ñëw na heure ba mu ñëwee ba mu waroon a ñëwee ñoo ngi ciy jaajëfal président bu baax a baax leen leneen li ci topp mooy ku nekk xam na ne ndimbal bi ñeenti junni buntu kër ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukki ak juróom benn muy 4396 ménages

ah ña ca topp nag commune bi def lool def na dimbal loolu waaye may souligner leneen lu am solo loo xam ne lii commune bi def nañ te yaakaar naa ne bariwul ci Sénégal bi Covid bi tàmbalee ndimbal di tàmbali dama ne waa commune bi ndimbal na ca fekk loxol borom dina neex gouvernement bi dimbale ñu dina neex commune bi indi waaye la gën a neex mooy ñun ñu dimbalante suñu biir moo tax dëkk bu nekk créé woon nañ comité de collecte yenn dëkk yi dem nañ ba ay 10 millions ci liñ collecté seen biir dëkk yenn yi a 7 millions yenn a 5 millions ci dund donc am na dëkk yi leer na ma ne dëkk yi malikunda am naa ne état bi li indi commune bi teg ko ci ak li waa dëkk yi dajale buñ ko yaakaar naa ne ñëpp daañu am ci dund bi ñu ciy jaajëfal képp koo xam ne kii nga ci di woowaat population bi pour ñu respecter mesure barrière mesure barrière yi ñuy garder suñu distance yi nga xam ne docteur wax suñu diggante ñuy raxasu lu bari di ay masque ak di def lépp loo xam ne lii rek corps médical bi ak kilifa yi denk nañu ko ne nañ ko def pour mën a génne mbas mi ci Sénégal. di nuyu président de la république di ko jaajëfal ci lii mu xamante ni moom la defal askanu taaxum di askanu Malicounda gépp tamit di jaajëfal tamit commune Malicounda di gërëm monsieur le maire Maguette fii mu ñëwee fi la neexee nawet baa ngi ñëw poos yi oyof na feebar baa ngi gëna bari ñu ngi gëna a mën a toog sunu kër di raxasoo saabu di war a lekk ceeb kon fii mu ñëwee fila la